rabbi shrah li sadri wa yassir li min lisani yafqahu qawli wa baadu salaamu aleykum taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu delluwaatee sant ci faalu li ma yurid moom mi nga xam ne ñett yi moom dong moo koy moo koy jagoo te dara du ko bi ci jiitu def lu ko neex te dara doo ci fekk keneen ku dul yàlla boo defee am ni tabarakallahu day def lu ko neex te dara doo ci fekk keneen ku dul yàlla boo defee lu la neex lu la naq di fekk la ci ñaareel tabarakallahu moom rek mooy génn wax te du diisoo kenn wala mu génn def te mu diisoo kenn te digal ni ñu bu ñuy def dara ñu booloo ñu di sóob ci ñetteel ko tabaarakallaahu sañ-sañ moom rek moo kon ko tabaarakallaahu ñu ngi koy sant bu baax a baax a ko ñaan rek mu jéggal ñu di ko ñaanal di ko tàllal di toroxlu feebar bi ci réew mi tabaarakallaahu yéen ak feebar bi jëlee muy mbas mi dem bi àddina déglu tamit ñi nga xam ne ñoom yàlla may ci wàllu xam-xam boobu ndax fas'alu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun nit loo maîtriser wu maîtriser wu waaye bu dugg ci loo maîtriser wu te ku ma fekkoon tey ma dugg ci wàllu science wala ma dugg ci wàllu may yaakaar naa war nañ maa yeddaat waaye ñu Sénégal yi dañuy xaw a dëgër fit waaw xaw a dëgër su ma dañoo dëgër fit su am ci wax mais li muy wax daf ko wóor li muy wax dara la ci xam dafa ka war mel ni yàlla mosul ci yooyu façon nit dana yàlla dund si wax xel yi ñu xam ne mbir kenn ku nekk ak branche bi nga jàng kenn ku nekk ak branche bi yàlla fay jële nga am ci xam-xam di ci wax waaye yooyu tamit boo dee ba ci wax di ci wax tamit loolu rek la waaye tabarakallahu di leneen kon fi yàlla jëlee jëlee ko ci àdduna bi yëpp ba kenn ku ne day war sa activité tabarakallahu dañ ciy jàng rek muy suñu borom dañ ciy jàng rek xam ne fii ku dul yàlla rek moom moo fi nee naa la ndigal yëpp ndigal yàlla ak ndigal waaw weer bi maa lay ba léegi amul kenn si ñu gën ñu mën fi jël xamuñu kenn loolu la ñu wax nattu la nañ ñaan yàlla yàlla jëlee ko nattu la nañ ñaan yàlla yàlla jëlee ko ku mënta fii nag fële ma fi ñu jëm la waar kon tabarakallahu nañu topp li nga xam ni ñoom ñoo am xam ñoom la yàlla jiital ñu xam mbir mi luñ ñu wax ñu def ko te li des ci loxo borom subhanahu wa taala di jëlee ci Seydina Muhammad mi nga xam ne mooy ashrafal xalqi di sangi sangi di yaakaari jàmm tabaarakallaahu di sëwër nag waaw di xeet di suñu di duñu sëwe ci àdduna ak ci àllaaxira ba ngay xam ne julli ci moom pertement kon dañu delloowaat suñu xel ci yàlla waaye dañu delloowaat ñu julli ci Seydina Muhammad moom nga xam ne tabaarakallaahu moom la yàlla xool ñu wala ko fi rasuulullaahi uswatun hasana yaakaar yàlla bu baax a wéyal baax te ñi nga xam ne yaakaar ngeen yàlla yaakaar yow wax yàlla am na toppal la nga ki nga xam ne moom mooy Seydina Mouhamad te bu ñu toppee Seydina Mouhamad rek du ñu réer bu ñu toppee Seydina Mouhamad borom xam-xam yaa ngi fi jàngale ci ko yonent bi jàngale baax baaxam jàngale façon kon yooyu buñ ko xoolee rek waaw ñu bëgg société bi mel dana ko mel waaye faral di waxaan société bi suñu séddoo kenn ku ne benn jikko Rasulullah kon léegi si Serigne Dia kon fa tabarakallahu di nuyu nag suñu xam ne généraux yi di la ñaan yàlla yàlla gën a guddal seen fan Serigne Babacar Sy Mansour yàlla yàlla guddal fanam Serigne Mountakha Mbacké yàlla yàlla guddal fanam di ko ñaan rek ci journée bi nga xam ne tabarakallahu tey moom la woote fële sa Touba mu jëgi mu def ko fépp ci àdduna ni kenn ku ne fi nga mën a nekk rek fa tabarakallahu ñu def ko journée xasaay jàng alquran jàng nga xasida moom borom Tuubaa yi ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala jëlee ci mbas mi waaye ñaan yàlla jéggi ñu suñu bàkkaar def ñu dégg-dégg wa tabaarakallaahu di ko ñaanal moom sëriñ Muntaxa yal na yàlla gën a guddal fanam ak mbooleem xalifa yi ñëw ci kaw suuf wa tabaarakallaahu dara ñoru ko lu dul diine wa tabaarakallaahu dara ñoru ko lu dul sopp rasulullahi wa tabaarakallaahu dara ñoru ko lu dul sopp maam jooju di Cheikh Xadim waaye dara ñoru ñu ngi sopp bàyyi boobu te bu soppee bàyyi boobu mooy sopp na maamam bu soppee maamam mooy sopp na rasulaay bu soppee rasulaay mooy sopp na yàlla kon tabarakallahu alquran wax na ko tabarakallahu wa man yuti allah wa rasuluhu fa ulaika allazina qad an'ama allahu alayhim min nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa xasuna ulaika rafiqa kon fa tabarakallahu Sëriñ Muntaxa Mbakke yal na yàlla gën a guddal fanam mu mel ni fa tabarakallahu ñu ko doon jooyal def ko seen a sax wa tabarakallahu donte bis a yàlla sax nit ñaa ngi jàng alxuraan bis bu yàlla sax nit ñaa ngi jàng xasida waaye mu jël bis boo xam ne ñu dajaloo ko ci àdduna te ni ku ñàkkoon jot ba mel ni man sax tey bis bu ñëwee jéem a am am bu jot ba toog fi nga xam ne mooy ci daara ji wala ci jàkk ji mën a jàng xasida mën a jàng alxuraan waaye mën a génne sa poche tamit togg jox doomu aadama ñu lekk kon tabaraka yàlla yàlla dana ko gën a tabaarakallaahu di nuyu nag tabaarakallaahu DG Kër yi tabaarakallaahu ko ñaanal moom yal na yàlla taxaw ko di nuyu nag suñu daay daay ko nekk ba Ndiassane di ko ñaanal tabaarakallaahu yal na yàlla gën a guddal fanam di nuyu Cheikh Mbaye Fakaay Mbaye Laay Kunta am na garaadeel xaadim yaay Kunta yéen sa Ndiassane ko ñaanal yal na yàlla taxaw ko moom sàmm ko ak mbooleem di ziara nag di jaale suñu xalifa bi ñu jógee tabaarakallaahu di xalifa laayee ni di ko ziara di ko jaale waaye di ko jaale mboolem ummatul islamiya da ko rek famille laa des waaye ummatul islamiya yëpp ak xalifa général day Thiénaba wa tabarakallahu ñu fi jógee ñoom ñu am ànd wuy di borom subhanahu wa taala ñoo leen di jaale ummatul islam yëpp Salam Vision chaîne yi ci nekk ci baale yi ñu ngi jaale ummatul islamiya yëpp suñu ñaari xalifa yooyu dëgmal àjjana tabarakallahu ñaan yàlla rek yàlla yàlla xaral àjjana waaye ñaan yàlla tamit suñu làmmiñ bi yàlla doon toj ci ñoom tabaarakallaahu Sénégal ñàkk na waaye àdduna ñàkk na waaw nekk ci lu baax rek moo am solo ci lu baax lañ nekk ci lu baax lañ nekk ba jógee fi fu ne lañ fàqee daw fi nga xam ne moo doon tey yaakaar fi mu ne dëkkuwaay waaye nag fi mu dëkkuwaay dalaa ji maanaam wax rek daaru dunya daaru nookaa wa jiifatin yujazibuhaa fahzar bi tilkaabi nee bii ku yaakaar ni kër la ndax nga sabab mu ni kër dox la ak këru mbedd ku këru mbedd nag xaj rek ñoo koy xëccoo kon àdduna jaaruwaay la àdduna jaaruwaay la àdduna liggéeyal sa borom la ba yàlla moo àggee mu kontaan ci yow xam li tax bindu la ko ko kon naa leen yal na yàlla oyofal suuf seen yal na yàlla xaaral àjjana di ko jaale ñëpp nag di ko jaale ñëpp di ko jaale président di ko waaye di ko jaale mboolem bi yéen a ko suuf waaye di ko jaale ummatu islamiyya yëpp bàyyiwuñu kenn kenn kenn di jaale suñu ñaari xalifa yooyu ñaareel ak yàlla boole na seen i moom boole na rasulaay bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni tabaraka allahu yéen ci émission bi al taalim fii ci Salam Vision ngeen ànd ko Oustaz Ibrahima Diarra euh, par jeudi bu jot incha allah ci chaîne bii nekk ci di leen fàttali rek ñoo yowoon ci bindu wa tabaraka allahu Muhammad waxoon ni kuy jël soxna ci ñeenti yi nga koy jël bi ñu ko jëlee ba pare nag dem rek ma ne ko mu ciy waxtaanal ma ne ko dafa doy waar sëy dafa yéeme dañu waroon ibbi école di ko jàngalal góor ñi di ko jàngalal jigéen ñi waaw war nañu ibbi école sëy waaw école boo xam ni waxuma ni ñuy sëy mais ñu jàngal ko góor ki nan la war di téye soxna waaye ku jigéen ñi nan la war di comporter ak ki nga xam ne moom mooy bu mel loolu lépp léegi arabe léegi waaye jamono gis koo xam ne dafay takk lundi passé dimanche a xool koo xam nga ñu ni sëy ba tas 4 mois 5 mois ñu ne sëy bu tas ba un an naa ci sëy te xamul ni carrément jigéen sëy la te carrément jigéen bi yàggul wa tabaarakallaahu am jëkkër bu dugg biir suuf moo gën ñàkk am jëkkër ba dugg biir suuf bañ na ko boo ñàkkee jëkkër sax ba dugg biir suuf danaa kan moo bëgg a doon jëkkër pour ñu taxaw ko xam ni kon loolu am borom kër fa tabaarakallaahu nekk na li gars yi waxoon ni sëy ñii ni sunna la ni ji moom sëy farata la ci moom waaw jamono ji moom sëy farata la ci waaw takk ko soxna farata la ci ndax bon bonu réew mi ndax bon bonu réew mi ak fi réew mi kon war nañu comme ni di ko jàngale ABCD jàngal la ni ñuy ni ñuy ubbee école bi savon yi di jàngale ni ñuy léttee ni ñuy savon ni ñuy ni ni ñuy yore noonu la ñu war a ubbee école bi jàngale sëy waaw noonu la ñu war a ubbee boo xoolee léegi góor ñi xamul nan la ñu war a jëlee jigéen jigéen ñi xamul nan la ñu war a comportement ak seen borom kër moo tax nag ñaar ñi nga xam ne xamul ni ñuy composé pour ñu yàgg ci biir nekk du yàgg waaw ku ñu bokk benn kër gi du yàgg koo xam ne tey waaw rawatina surtout bi téléphone xewee ci WhatsApp bi ci Facebook yi gis ci Facebook bi même ko bëgg naa mu ne bëgg na mu ñëw wàccee ka katama téléphone bu rafet tiital la nga ne ko par exemple séeréer la te xamoo jikkoom te jikko a ñuy téye doomu aadama waaw jikko la ñuy téye doomu am am boo ci téye nit bu lay jox mu jeex taar boo ciy xoolee boo leen gisatoo taar mu jeex mais jikko la ñuy jàppee doomu aadama ndax jikko du fenn jikko du fépp donte am na ñoo xam ne dañuy ñëw nëbb seen jikko ba am na ñu bëgg waaye tamit yàlla yàlla musal ci yooyu doomu aadama waaye tamit jikko du fépp moo tax Seydina Muhammad bi ko yàlla tagg daf ne ko innaka la ala xuluqin azim lu tax fa sa tubsiru wa yubsiruuna bi ayyikum maftuun neexul ba neexul ya rasulullaah neexul ba neexul mais yow rasulullaah dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waxuma i yaa ngi jikko mais yéen a jikko ñëpp bu ñu taxawee yaa ngi ci kaw kon tabaraka allahu yàlla yàlla ne jikko yu mel noonu bi jaay seydna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo jël soxna la da nga a teg teg xale bu jigéen wax la li xam ni noonu nga ko war a téewee waaye dañuy xale bi sëy ñu profité ci li nga xam yoo xam ne ñoom ñi koy wax sax dese nañ ko gëm ndax sax arme ni wax a am ak xale a dégloo ñoo ngi wax ak parle li tubaab naan parle pour parler naa wax rek comme ma ngi taxaw rek naa wax rek naa wax rek waxaat sama doom bi bu ko dóor bu ko saaga musuma ko dóor musuma ko def nii musuma te nga xam ne sa doom am na ay jikko yu bon bon bon bon bon yu ne ci moom nga war a fexe ba jikko yooyu ne ci ko ci yow foofu dina taal waaye da ngay nëbb loolu naan sama doom bi musuma ko dóor sama loxo mus naat na ma ko yor soo ko ma si nga loolu du wax nit ki boo yoree sa doom da nga koy yar à bas à l'âge à bas l'âge ci bu mu nawee nga am ci moom jàngal ko xam ne foo mën nga ba faaw ne am na xale yoo xam ne mënuñu dem fenn fu dul seen parce que yar gi waroon na ci ñoom naw ci ñoom xale yoo xam ne bu ñu toogee di lekk fee la ñuy sànni seen tànk yi fee la ñuy sànni seen yi tuur ndax kenn xamul la ñuy ñëw kooku fatabarakallahu kooku fatabarakallahu nga muy dundal mel noonu kooku fan fu mu dem fatabarakallahu ñu xool ko waaye boo ko éduqué à l'âge à bas âge ni ko yemal fii boo toogee nii ngay toogee booy lekk nii ngay lekkee say wax sama ni ngay waxee moom ba la ci ni nii ngay waxee moom kooku fu dem dina fa mën a nekk loolu lay tàmbalee loolu lay ba màgg ànd ak moom kon fa tabarakallahu yàlla yàlla xiir wax naa kaw ni buy wut wutal ci nga xam mën na la yàlla say njaboot ci siraatal mustaqim mën na la yàlla say njaboot ci li nga xam ni moom mooy diine ndax loolu Seydina Muhammad wax taar bi baax na askan bi baax na am alal ji baax na ci waaye bi gën nag mooy borom jikko ju rafet bi nga xam ni dina la mën a yàlla sa njaboot ba mu rafet waaye keroog nga demee ñu ne tey diw saako ñu may soxna ñu war dem jàkka ja lan a lan moo war a génn nan la charia digal ne la yii nag moom la moo la wax ci a xam ne mooy sa bi ki pour mu nekk si soxla da ngay joxe li nga xam ne moom mooy can kon xale jigéen bi fii joxoo ko can teg loxo dara du la bale rek dina dagaan waaye ñu ne ko a allahu lu yàlla xam doone koo ci mu ne teewal na te war na ko nañ dem seen néeg mun na bismillah kon ban réew lañ kon li iblis bëggoon ñun ci loolu la ñuy dem waaye li yàlla bëgg defuñu ko nit ñi la takk nga ne pare ko te fu mu la woo nga fekk ko fu mu la fu mu la àgg doo te mu la war a takk nga ko kon nit li yàlla la ñu bàyyi fële topp lu iblis bëgg waaye bu ñu toppoon lu yàlla bëgg yaakaar naa ne société bi dina jag ñu ngi naan balaa ci réew mooy gi bare gi la Sénégal kay léegi dañoo ñemee mooy ñun nee mooy ñun ñun mooy ñun góor ñi jigéen kenn ku ne yaay wax te kenn ku ne da nga war a xool sa bopp li ngay wax boo xam ne yaa ngi koy def bopp bu fekkee yaa ngi koy def nga bàyyi ko soo ko deful nga mooy du ko def waaye tey réew mi baax mooy gi daa bare téeméer naa mooy gi daa bare foo toll yaa ngi mooy foo toll yaa ngi mooy xale jigéen boo nga jàpp ne pour yow am na buur yoo xam ne sax comme ay bëri pour ñoom jigéen woo leen romb jigéen bu leen romb seen xel métti te mënoo jeexal jigéen ñëpp te am na yoo xam ne esprit mala nit da ngay doylu dañ wax ni ni waxuñu góor du bëgg jigéen mais nit da ngay doylu boo amee bu yàlla wërsëgal bu baax ci yow yow ci yow déggal la te tàggam jooyu soo ko mu saxin boo nee wono mu ni koŋ boo nee doy na mu ni xet yemal ci moom te jaamu ci yàlla bi yàlla waxee lan la yàlla مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم takkal benn ñaar ñett ñeent mais boo leen mënta yemale yemal ci kenn ki nga xam ne nag moom la yàlla la wërsëgale nit Serigne Cheikh nee na réer ba réer jeex mooy réeré sa bopp waaye xam ba xam jeex xam sa moo ci gën boo yemee ci benn amee benn yoo amoon néeg yaa ngi fay lu yaas yoroo sa dépense matul lu yàlla xam doy na loo yore yi gàllankaatu te loolee moom sa jabar dox ko ci xale jigéen ci lu la yàlla war a sëgal may la benn sa sama son fexe ba mu génnee na ko nit ñi naw fexe ba mu génnee na ko nit ñi respecté fexe ba mu génnee na bàyyi ko ci biir génn ci biir yi mel ni kenn xamul ni ngay nuyu bi jëlee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu la fekkoon nag nga toog sa jàkka ja dégg imaam bi yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum lazi xalaqakum min nafsin waahidatin ee yéen doomu aadama yi ee yéen nit ñi waxul yow Samba yow Ibra yow Fallou yow Xaadim yow Kéba yow Babacar yow Malick yow Ibra damaa bëgg nga xam ni nga ragal ma man yàlla man yàlla man rek man yàlla te maa leen bind ci benn bakkan kon yéen ñi nga xam ne yéen ci biir ay góor di Ibra di di di Samba di Xaadim di Maalik di Babacar di Moodu yéen ragal leen ma te xam ne man yàlla man doomu ma yàlla keneen ku dul man doo yàlla yaa ay xam naa su yéen yéen ñi ñu toog nii di góor ñi mun doon leen tey di ñaan tey ittaqu rabbakum ragal leen seen borom allazi xalaqakum min nafsin waahida yàlla moo leen bind ci benn bakkan wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa wattaqu llaaha allazi tasaaءaluuna bihi wal arham inna llaaha kaana alaykum raqiiba eh boole naa leen yow ñu góor ñi ak yéen ñu jigéen ñi ngeen ngay am ay doom yu góor yu bare am ay jigéen yu bare bare bare bare ngeen xam ne nag ngeen war maanaam nag respecté ñi nga xam ne ñoo leen jege seen dëkkandoo yi ak ñi nga xam ne tabarakallah ñoo seen mbokki ak seen mbokki meen ngeen respecté leen ngeen jox leen leen cër ngeen xam ne mooy maaleykum yàlla bu tegaat yaa allazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida nee na sàmm yow Fatou yow Korle yow Nafi yow Ibra ragal leen seen borom te kenn ku ne wax ak moroom na ko respecté wax ak moom wax ju sell bu mu génnee wax ju bon jëmale ci moroomam waaye ñu fii Sénégal góor ñi dañuy jël jigéen ñi saaga xas te bu jigéen ñi fayoo indi repas ak mayet respecté woon naa te yàlla ne yéen ñaar ñëpp kenn ku na jox moroomam cër ba kenn ku ne wéeru wax moroom ni def si moroom te nag celui qui respecte celui qui le respecte est réciproque nit da ngay respecté sa bopp ñu doog laa respecté koo saaga mu saaga ndax gënoo ko lay koo xas mu xas la ndax gënoo ko judd kon nit yi balaa nga koy saaga wala ngay xas ñu nga ñuy Sénégal ñaari aar dañu am pour ñun xale mooy toj mag toujours wala jigéen mooy toj góor toujours te yenn saa jikkër moo ñoo jaww te jikkër ni la jabar di di di yow jikkër mën nga ko war a jéggaloo ni la jabar di neexale yow jikkër mën nga ko war a neexale waaye ñooy jàpp ni xale jigéen rek ñoo ñu war a neexal wala tamit suñu suñu doom yi wala suñu rakk yi buñu nit buñ la toogee sax ñoom ñoo war a tunduwaat baxawaa moom loolu ci aaday Sénégal rek wala diine kon ñoo ngi jéggalu ñëpp di balaatu di ñaanal ñëpp jàmm li ñu li ñu féetale woon ci waxtu bi tabarakallah bu mat na di ñaan yàlla rek ñu fi yàlla bàyyi ba émission bii nii incha allah bi ñu àggale ko fii ci Salam Vision ànd ko jël ak Oustaz Ibrahima Diarra waaye dama daal mu te nuyu ma tabarakallah ki moom di yàlla émission bi di sëñ Samba Diouf di ko ñaanal yàlla yàlla doon taxaw ko yàlla doon ko wér yàlla doon ko jàmm doon ko sutura yokk mu yëpp bi jaay seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ak grand di Serigne Sall Seck di taalibu Cheikh Cheikh Oumar Mbacké di ko ñaar moom di leen ñaar taxaw ko di ma daal mu tabaarakalla di nuyu ma sama baay Jaay Pape Dramé di nuyu sama yaay Jaay Tane Penda Seyri di ma fàttali ko bañ Dawa Imam Gueye Tane Mawa Cissé waaye sama yaay nag bi di sama yaay nag tabaarakalla sama yaay mu jot di ko ñaan yàlla yàlla dundal faram di nuyu Serigne Babacar Sall di sët ci Serigne Serigne Babacar Sy di nuyu Serigne Moustapha Sy responsable muxtafin fi asar abaay wal ajdari di ma faat Serigne Ousmane Sy Dabakh mi nga xam ne tabarakallahu di suñu wasila di suñu xarit di nuyu waa Sopp Dabakh di nuyu waa Moussa Sy waa Moussa Sall di nuyu waa Jeunesse Tidiane di ma faat Yaya waaye di nuyu waa Xidmatu Xaadim moom maam du du pàkk ba waaw waaw nuyu naa ñëpp di nuyu fu ñu mos a di ko def nag ci loolu jërë nga jërë wasalaamaaleykum taala wa